عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما فمنهم من غدا نعبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال wa kaana allahu qawiyyan aziizan wa anzala allaziina zaaruuhum min ahlil kitaab min shayaasiihim wa qadhafa fi quluubihimur ru'b fariiqan taqtuluuna wa taashiruuna fariiqan وأورشكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تتئوها وكان الله على كل شيء قديرا وخلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقلغت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلغت الأبواب وقالت أيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وقلغت الأبواب وقالت هئت لك قال معاذ الله إنه ربي أرسل مثواه إن إنه لا يفلح الظالمون yi xam naa du gudd ndax kenn ku nekk xam ne waxtu wi sori na lool te jataay bi mi ngi door a tàmbali waaye kàddu yi yëpp kàddu yi cant la cant gi ñi ngi ko tàmbalee ci cheikh Mouhamadul Muntaxa alxalifatul am li tarixatil muridiya di ko ñaanal suñu borom may ko fandu gudd lool wa ànd ko wér ba yéene ji mu am ci lislaam am ko ci yoon wi suñu borom may ko kattan may ko wér ba mu àggale ko na mu ko bëggee di ci teg suñu way jur di suñu sëriñ du suñu kilifa muri sëriñ Abdullahi Mbakke yàllay buur mi nga xam ne moo nekk tey ci boppu njabootu màmoor Jaara ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziyaare di jaare mboolem nuyoo njabootu maam borom Sam yépp ci loxoom di siyaare ak a it sëriñ seex jëmb faal mi nga xam ne moo toogee jataayu maam seex Ibrahima Fall baabul muridiin moom itam di ko ñaanal suñ borom bàyyi ko fi defal ko fandu gudd loolu wa ànd ko wér ba yéene ji kilifaam yu baax yi amoon ci yoon wi moom itam mu am ko suñ borom may ko kàttan ba mu àggale ko na mu ko bëggee di sant bu baax a baax délégation bi nga xam ne ñoo fi teewal sëriñ Cheikh Jëmb ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare te di leen sant bu baax a baax ci ni nga xamante ne bii noonu la ñu wuysee ci bis bii muy bis boo xamante ne bii dañ ciy fàttaliku Maam Moor Jaara borom Saam jort naa lool ne fàttaliku Maam Moor Jaara borom Saam duppee ko Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin li ngay def xam nga ko ndax Cheikh Ibrahima Fall ni mu toll ci yoon wi Cheikh Ibrahima Fall li mu doon ci yoon wi waaye Cheikh Ibrahima Fall li mu doon ci jëmmi sëriñ Mor Diarra mii nga xam ne moom lañuy ñuy fàttalikoo barab bii ñuy fàttalikoo Cheikh Ibrahima Fall miin na ko lool nekk na fi ab diir ànd ak Cheikh Mor ci ci ndigalal Cheikhul Khadim radiyallahu anhum ku ne xam na ne. li ëpp ci njabootu maam Cheikh ma Fall ci dëkk bii la dëkk loolu itam relation la boo xamante ne bii ñun ñëpp maasa nañ ko xam loolu yi leen sëriñ bi wax léegi ci biir wax na li tax ñu sos bis bi def ko tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall mooy dañuy delloo si démb delloo si démb googu moo waral mbooloo mi ànd maase seen xel daj Cheikh ma Fall Cheikh Ibrahima faal yaakaar naa ne kuy def lenn ci yoon wi rek war nga ko caa mën a boole ndax lim doon ci yoon wi umput kenn doon koo xamante ni bii diggam ak sëriñ Touba ni mu fa mu àgg ak dayo ba mu àgg jar na kenn ku taxawal bis ku ne tuddee ko bés bi kon loolu mooy sababu ñu jël bés bi tuddee ko Cheikh Ibrahima Fall ngir fàttaliku démb diggam ak mamoor Jaara borom Cham waaye bi ñu leen tuddee bis bi it xam nañu ne ñoom li tax ñu tuddee leen ko muy ak bokk ak bokk yaakaar sëriñ Touba. ba tax na ñu wuysee nii ñu wuysee li ñu wuysee sedd na suñu xol kawe na suñu njortu ñu ngi ñaan ci darajey seexul xadim mii suñu yaakaar suñ boroom defal leen ndimbalul àddina defal leen ndimbalul àllaaxira te boole na ko ñun ñëpp ci barke seexul xadim bépp yiw wala tuyaaba boo xam ne dina wàcc ci bis bii ñuy defal seex Mamoor Jaara borom Saam yàlla na ci suñ borom boole seex Ibrahima Fall ba boole waale ci ñun ñii ñëpp mu defar suñ àddina defar suñu àllaaxira ñi ngi leen di sant bu baax cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem loolu lu ñu ubbee ñun rek la waaye buñ demee ba ci biir sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke moom sëriñ Ismaayil mi nga xam ne moom la sëriñ bi jox ndigal mu wuuti fi sëriñ Seyxuna dina gën a détaillé kàddu yi incha allahu taala ci biir loolu itam sunu kilifa bopp yi ci boppam ñi ngi leen di sant tàmbalee ko ci sëriñ Abdullahi ndax yaakaar naa ne ku ñëw ci jataay bi soo xoolee jataay bi da nga xam ne lii du ñun dong kilifa yépp ñoo commencé àndandoo ak ñun lépp loo xamante ne bii nekk nañu ca suñu kilifa yi ànd nañ kook ñun lépp loo xamante ne bii ñoo koy ñi ngi koy jëf suñu kilifa ñoo ca jiitu day mel ne li may wax ci naan liggéeyal Serigne Touba dafa yomb ndax Serigne tubaa day jël coono bi bàyyee la sag bi suñ kilifa yi noonu lañ def ak ñun lépp lu ciy coono ñoom ñoo ko jël sag bi rek lañ ñu bàyyee ñu ngi leen di bàyyeeg seen maam Serigne Mamor Diarra mu fayal ñu leen. yàlla na leen defal lu kawe seen njortu ci barki seexul xadiim di sant itam mbooleem bokk yi nga xamante ni bii teew nañ fi yëpp mbooleem daayiri sët yi ci yoonu murit kër gu ci nekk ab délégation jugee fa loolu tam nag dangeen a xam ne seen kër yooyu ngeen jugee ak kër Serigne Mamor Diarra gi génn kër la ñoo nekk di détaillé waaye ñëpp ñu ngi leen di sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye am fu mu yem ndax lépp luñ mas a nekk rek ànd ngeen kook ñun. lépp lu luñ mës a bëgg itam fekk ngeen ñu ca ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm di sant bu baax a baax itam ñi nga xamante ne bi jàpp nañ ci bis bi ba bis bi mel nii mu mel loolu suñu kilifa yooyu ma wax ñu ngi ci cité ku mel ne sëriñ Moustapha Mbacke moom Serigne Abdoul Khafour ak mbooleem njabootu Serigne Abdoul Khafour gépp di sant bu baax a baax itam sëriñ seex Mbacke moom sëriñ Ismaïl mii nga xam ne moo fi teewal sëriñ Abdoulahi Mbacke ci jataay bi di ko ñaanal moom itam suñ borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te wér ndax kilifa gu disponible la gu oyof la gu bëgg lu baax la ni ki noonu itam ñi ngi sant bu baax a baax sëriñ naa mbakke moom sëriñ Cheikh Penda moom mi nga xam ne moo yor kaddu njabootu maam borom Cham gi yépp te waroon a teew ci jataay bi teewal fi sëriñ bi xëy na ay gàllankoor moo ko waral ñu ngi koy sant moom itam bu baax a baax su ma tuddee kilifa yooyu yi ci biir njaboot gi dinañ mën a yóbbale mbo yóbbaale mboolem suñu kilifa yi nga xamante ne bii ñoo bokk ci Mamor Jaara yëpp ak nuñ fu ci waay mën a sëtoo moo xam Mamor Jaara jur sa way jur wala mu jur sa wu góor wala mu jur sa way ju wu jigéen wala mu jur sa maam ju góor wala mu jur sa maam ju jigéen ñoo ñuy ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu saa yi ñu ma a àgg ci bis bi itam dinañ fàttaliku bu suñu mbokk moo xamante ni bii ku yàgg sonn ci bis bi la ku ci yàgg jëf di ñaan mboolem ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk def ab dog ñu ñaanal ko muy sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abdul Xafoor di ñaan suñ borom dolli ko njéggal te dolli ko yërmande di ñaan suñ borom wane la ko maamam te tedd yooyu ci barki Seexul Xadim waaye di sant bu baax a baax a baax itam sëriñ Abdul Lahat rakkam fépp foo xamante ne bii sëriñ Xaadim daana fa taxaw ak mbooleem taalibe sëriñ Xaadim yi àndandoo nañ fa di fa di ko def ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm sant itam bu baax a baax ay bokk yoo xamante ne bii jàppale nañu ci bis bi ku ci mel ne directeur SOSIP muy Galoba Galoba ñu ngi koy sant bu baax a baax te di ko gërëm te di ko ñaanal suñ borom jàppale ko te suñ borom yokk ay ndombay tànkam ndax lu mel nii ke saa yoo koy def ku la ci jàppale rek war nga koo sant waaye am na jàppin woo xam ne ku ko ci jàppin wax war nga koo wax ba ñëpp dégg ko ndax tànt bii ñu tiim moom moo ko fi def te def ko ngir jëmmi Serigne Touba def ko ngir jëmmi Mamor Diarra loolu itam nañ ko seereel bokk yépp ñu ñaanalal ñu ko ba lu man ren bu déwénee mu man lu ko ëpp ci barki Seexul Xadiim di sant itam le maire de la commune Serigne Abdou Mbacké Ndaw moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ci taxawaayam ci jàppam moom itam jàpp na ci bis bi jàppin wu rafet ñu ngi koy ñaanal suñu borom dëgëral ko te sàmm ko ñu ngi sant bu baax a baax itam suñu mbokku Serigne Aramine Mbacké moom itam liggéey bii ñuy def ku ci dugal loxoom la ku ci jàpp la ñu ngi koy seereel bokk yépp te di ko sant te di ko ñaanal suñ borom taxawu ko bu baax a baax a baax ñi ngi sant tam mboolem autorités yi ci dëkk bi yépp du jar ñuy nekk fi di détaillé kenn par kenn ndax lépp loo xamante ne bi yitey kër gi la wala lépp loo xamante ne bi yitey njaboot gi la gis nañ ci seen taxawaay gis nañ ci seen jàpp ak seen jàppale ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm di sant mboolem bokk yi yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di ñaan bis bi yàlla nañ ko yàgg taxawu te daje ci ak ngërëmul maam borom saam mi ñu koy defal ndax ñu ñu bokkal Serigne Mor Diarra ñëpp moo xam góor la moo xam jigéen kenn ku ci ne saa yu ñu wootee sa alal du ko fekke sa jot du ko fekke sa jëmm du ko fekke loolu nag xam seen maam ni mu toll ci yoon wi la xam seen maam ni mu toll ci Serigne Touba te xam ne képp ku liggéeyal Serigne Tou Serigne Mor Diarra Serigne waxoon na ne yàlla dana la fay yonent bi fay la Serigne Touba ci boppam fay la Serigne Mor Diarra fay la kon ñeenti fay yooyu ñu tudd ci liggéey bi Serigne Mor képp ku fi teew yàlla na ko suñu borom defal ci barki Seexul Xadiim ñi ngi sant boolem bokki dëkkandoo yi yépp tam nag ñu ñi bokkal dëkk ci dëkk bi yépp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ndax lépp lu luñ nekk rek kenn ku ci ne na ci loxoom ba bis bi mel ni mu war a mel ñi ngi leen ciy sant bu baax a baax ci turu Serigne Abibou ci turu kuréel gi yëpp ñu ngi leen di sant di leen ñaanal suñu borom jàppaleen te taxawu leen di sant mbooleem presse bi mboolem télévision yi fi teew ak site internet yi ak rajo yi du jar ñuy ñëw ci dara yi benn par benn waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant te di leen ñaanal ñoom itam suñ borom taxawu leen ndax gis nañ liggéey bu rafet bi nga xamante ne bii def nañ ko ci màggal gi ndax fu fu nit mën a fu mën a nekk ci àddina bi rek lépp lu ñuy jëf ci Mbàkke wala ñu koy jëf ci réew mi yaa ngi koy dund fu ci àddina bi yëpp te bu mënee am yàlla ak seen jëmm yi ñoo tax mu am kon ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm di sant itam bu baax a baax suñu bokk Serigne Sam moom itam ci disponibilité ndax moo moom mooy def waxtaan wi biñ jokkoo ak moom itam wax dëgg yàlla jàppandal na ko lool moo te muy moo koo muy mu doon koo xamante ni bi itam ci daayira bi la bokk yàgg cee sonn lool bokk ci membre fondateur yi moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm te di ko ñaanal di ñaan suñu borom jàppale ñu te taxawuñu ba yéene jiñ ci am yépp ñu mën koo mottali mboolem ñi nga xamante ni bi ñoo sonn ci bis bi ak fu ñu ci mën a sonnee ak ñi ñi nga xam ne ñoo jëf ci bés bi ak fu ñu ci mën a jëfee ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm te di leen ñaanal suñ borom taxawu leen bu baax a baax a baax a baax gis nañ yitte ji gis nañ yëg gi gis nañ jàpp gi sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdoulahi yàllay buur moom itam du maire Misra bokk ci kër gi moom itam taxawaayam ak taxawaayu conseil municipal bu Misra ñoom itam gis nañ ko bu baax a baax ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal suñu borom taxawu leen moom itam ba yéen ji mu am moom itam man koo àggale na ma ko bëggee ci barki seexul xadiim sant nañ bokki jullit yëpp sant bokki taalibe yëpp di ñaan yàlla nañ ko teewe at yu bëri lool te daje ci ak ngërëmul Serigne Touba daje ci ak ngërëmul Maam Mor Jaara mi ñu koy defal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wallaahi wa barakaatuhu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Ismaïla Serigne Mor Jaara mi fi toog jataayub Serigne Abdoulahi Mbacke yàlla lay wër te kilifa jataay bi moo leen di nuyu ci turu sëriñ bi sëriñ bi nee na mi ngi leen di gërëm bu baax nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi ak ngërëm yi njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine gii fi toog sa Cheikh Ndiaye Mbeng mi jiite ko ànd ak rakkam sëriñ Fallilou Fall ànd ak doomam di sëriñ Fallilou Fall di wëllëreem nee na di wëllëreem lool ak sëriñ Moustapha Fall ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp nee na mi ngi leen di jottali nuyoob sëriñ Abdoulahi Mbacke yàllaay buur ak i ngërëmam ak i ngërëmam ak ngërëmul njabootu mboolem njabootu mboolem Mamoor Jaare ak njabootu Morom Saam gi ndax ni leen ko waxee ci biir. ndax ni mu ko waxee ci biir kër gi. loolu rek la. noonu rek la demee. ndax nee na dundal cosaan. ndax nee na dundal cosaan. moo waral tuur wi tey. moo waral tuur wi tey. ndax ñi ba leen yàlla boole. ndax ñoom ñaar ñi ñuy wax ba leen yàlla boole. muy sëriñ Mor Diarra. muy sëriñ Mor Diarra. Cheikh Ibrahima Fall. ak Cheikh Ibrahima Fall. yàgg na lool. na mbir mu yàgg la lool. waaye nag. waaye nag. Cheikh Ibrahima. ni ko sëñ Mamour Ndaw may waxee. ni ko Ndaw waxee léegi rek. ñu ngi koy gërëm bu baax ci ay nee na sëñ baa ngi gërëm bu baax te rafet la ay kàddoom. ndax leeral bi am na solo. ndax li mu fi leeral lu am solo la. waaye sëñ bi ko ci gën a bégloo rek. waaye sëriñ bi li li ko ci gën a bégloo. ak njabootu sëñ Mor Diarra gépp. ak njabootu sëriñ moo Diarra gépp. mooy bi ñu tuddee Cheikh Ibrahima bis bi. nee na bi tuddee Cheikh Ibrahima Fall bis bi. ba bis bi agsi. ba bis bi agsi. bégg ngeen ko bégee. béggee gi ngeen béggee bis bi ak tuddee gi. ba mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp. ba mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp. ànd ñëw teew si fi. ñëw teew si góor ñi ak jigéen ñi. góor ñi ak jigéen ñi. muy lu am solo. nee na muy lu solo ci moom. nee na loolu sëriñ bi nee na na ci. loolu sëriñ bi nee na ci lool. ak mboolem njabootu maam Mor Diarra ak mboolem njabootu maam Mor Diarra borom sàmm te yéemu leen ci teew gi. nee na te yéemu leen ci teew gi rek. da ngeen koy boole ak teraanga yu mat sëkk ci teraanga. da ngeen koy boole ak teraanga yu mat sëkk loo xam ne li ngeen indi defar na bis bi. loo xam ne li ngeen indi defar na bis bi. kon nag sëriñ bi mi ngi leen di sant. kon nag sëriñ bi mi ngi leen di sant. leen gërëm. di leen gërëm. di ñaan seen taxawaay yàlla gën koo dëgëral. di ñaan seen taxawaay sunu borom gën koo dëgëral. sunu waajur yu ñuy waxtaane nag. nee na sunu waajur yooyu ñuy waxtaane nag. maam yooyu ñuy waxtaane lan mën a wax. maam yooyu la mën ñuy waxtaane nag. sëñ di ma sëñ maam Mor Diarra borom saam. ak maam Cheikh Ibrahima ak maam Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall. dafa def lu kenn defut. dafa def lu kenn defut. waaye it am na lu kenn amut. waaye it am na lu kenn amut. ndax kat. ndax kat. baabul muridina moom. moom. ma su ko weesu. ma ne su ko weesu. ginnaaw mooy buntub murid yi. ginnaaw mooy buntub murid yi. ma ne su ta weesu loolu. su ta weesu te murid. te murid. dafa am loo xam ne. dafa am loo xam ne. la sëñ Fallou waxoon. la sëñ Mouhamadou Fadil waxoon. ne am lu kenn ne noo am lu kenn amul. mooy no euh, sëñ Touba. nee na loolu mooy Serigne Touba. dafa am Cheikh Ibrahima Fall. dafa am Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ibrahima Fall defal ko lu mu defalul kenn. Cheikh Ibrahima Fall defal ko lu mu defalul kenn. Serigne Touba fayee ko lu mu fayewul kenn. Serigne Touba it faye maam Cheikh lu mu fayewul kenn. ba tax na euh, Baye Fall. ba tax na li ñuy wax ak Baye Fall. mi ngi mel ne euh, takkaay loo tëgg ba mu noppi. mi ngi mel ne takkaay lu ab tëgg tëgg ba mu noppi. ñu war koo couleur. ñu war koo couleur. couleur yi yoon wi. couleur yi ko yoon wi. kuloorub yoon wi. kuloorub yoon wi. ak sagub yoon wi. ak yoon wi. mooy njabootu Cheikh Ibrahima Fall. mooy njabootu maam Cheikh ba Fall. Eh, loolu nag. loolu nag. doy na dalum xel. nee na doy doy na dalum xel. li li ko ni ko sëñ Mamour mi waxee léegi. nee ko sëriñ Mamour Ndaw moomu waxee léegi. noonu rek la amee. nee noonu rek la amee. ndax maam Cheikh bi mu jébbalee boppam. ndax maam Cheikh bi mu jébbalee boppam. ak am. ak li mu am. delluwu ca gannaaw ginnaaw. Eh, yal na yàlla yàggal njabootam gi eh, ci ci ginnaawam. yal na yàlla yàggal njabootam gi ci ginnaaw sëriñ Cheikh Jëmb Fall. te dëgëral leen bu baax. te dëgëral leen bu baax a baax. waaye ñoom it ca yoon woowu rek la nekk. yal na yàlla gën a jàppale. yal yàlla gën a jàppale. yal yàlla gën a dimbali. yal yàlla gën a dimbali. nangu leen seen bu liggéey. nangu leen seen bu liggéey. te bañ am benn ndokk. te bañ am benn ndokk. ndox sax mën na caa ñàkk. ndox sax mën na caa ñàkk mu ne. mën na caa bañ mën na caa bañ a ndax li ko waral. ndax li ko waral. diggante Maam Mor Jaara. diggante Maam Mor Jaara. ak Serigne Touba. ak Serigne Touba. dara defee jaarut. diggante Maam Jaara. diggante Maam Mor Jaara. Cheikh Ibrahima Fall. ak Cheikh Ibrahima Fall. dara jaarut. dara jaaru fi. lu dul ndigal. lu dul ndigal. diggante Maam Mor Jaara. diggante Maam Mor Jaara. Cheikh Ibrahima Fall. ak Cheikh Ibrahima Fall. Serigne Touba. ak Serigne Touba. xam. yàllaa xam. loolu moom suñu yoon nekkul. mu ne kon loolu moom ñun suñu yoon nekkul ca loole. ñaan yàlla tas ñu rek ci seen barke. ñaan yàlla rek mu taas ñu seen barke. ba tax na Serigne Bilal nee na. jotli ay ngërëmam mi ngi leen di jotli ay ngërëmam ak ngërëmul njaboot gi yëpp ci taxawaay bu rafet bii nga xam taxaw ngeen ko ci teewaay bi yéen ñëpp ci teewaay bi yu mati sëkk ay teranga kon nee njaboot gépp ñu ngi maasi leen bégee di leen sant di leen gërëm gannaaw loolu itam sëriñ bi nee na ngi sant njabootu boppam gii nga xam ne lii ko taxawee. ñoo bokk di ko taxawee. muy daayira bi. muy daayira bi. sëriñ Abibu nekk ci kanam. te sëriñ Abibu njaboot gi mu ko àndal. sëriñ bi nee na gis na seenu taxawaay. ak seen yitte. te lépp. teral seen maam. ak sagal ko. ak sagal ko. a waral. a ko kon nag yàlla yàlla nañu ci daje ak ngërëmul Maam Jaara. nee na di ngi santit bokk yi nga xam ne. bis bii. bi mu dëgmalee. bi mu dëgmalee. kenn ku nekk ci ñoom. loo ci mën a def rek. loo ci mën a def rek. wala nga mën ko cee wax. wala nga mën ko cee wax. ngir yéwénal bis bi. ngir yéwénal bis bi. def nga ko def nga ko. bokk na ci. bokk na ci loolu. ku ñuy wax galaw ba. ku ñuy wax galaw ba. ndax galo ba. ndax galaw ba. ci dëkk bi la dëkk. ci dëkk bi la dëkk. di doomi Mbàkke. di doomi Mbàkke. waaye kenn gënu ko lu baax. kenn gënu ko bëgg lu baax waaye. njabootu borom saam gii. taxawaay bi mu ci taxaw. taxawaay bi mu ci taxaw. rafet na lool. ndax tànt bii ñu toog. ndax tànt bii ñu toog. moo ko warlu. moo ko warlu. at mu nekk. at mu nekk. defloo ci kenn dara. defloo ci kenn dara. te lu mu ci mën a boole boole ko ci. te lu mën a boole it ginnaaw bi boole na ko ci. yeneen bokk yi ci des it. ak yeneen bokk yi ci des yi nga xam ne it. ku mel ne Aramine Mbacke. ak bokk yëpp. ak bokk yëpp rek. kenn ku nekk la la ca war. taxawuñ ko ci bis ba mat sëkk. Serigne Moustapha Mbacke mii di doomi Serigne bi. Serigne Moustapha Mbacke mii nga xam ne mooy doomi Serigne bi. tey mooy maire Misra te nga xam ne tey mooy maire Misra. Eh, gërëm nañ ko bu baax. nee na it Serigne bi neen mi ngi koy gërëm bu baax a baax. taxawaayam ci taxawaay bu mat sëkk ndax mënoon na ni man kat sëñ bay sama baay yam ca loolee waaye taxaw na ci taxawaay bu mat sëkk waa góor nag ku ko dégg ku ne waa góor nag ku ko dégg ku nekk daa am lu ko waral daa lu ko waral ndax am nga loo def ndax am na loo def kon nag sëñ euh, sëñ Cheikh Ndiaye sëñ Cheikh sëñ Cheikh Ndiaye sëñ Fallou Fall sëñ Fallou Fall ak délégation bi ngeen àndal bépp mboolem mboolem bokk yëpp. mboolem bokk yëpp. sëriñ bi sëriñ bi. ak njabootam njabootam gépp. maas nañ di leen gërëm. maas nañ di leen gërëm. di leen sant. di leen sant. di leen ñaanal. di leen ñaanal. ci barke borom Touba. ci barke borom Touba. ak maam Mor Diarra. ak maam Mor Diarra. Eh, yàlla ak suñu Touba tas borom Touba tas yàlla borom Touba tas leen leen ci ak ngërëmul sëriñ bi. Eh, sëriñ bi nee na gis na taxawaayu waa bi. sëriñ bi nee na gis na it police. police ñoo yor jooju wax. nee na loolu sax am na ñeneen yor wax wax joojee. waaye sëriñ bi wax ne xolam sedd gu sedd ci seen taxawaay. moo tax mu di loolee. na ñëpp. waaye sant na ñëpp. gërëm ñëpp gërëm na ñëpp. jaajëfal ñëpp jaajëfal ñëpp. rawatina waxtaankat yi conférencier yi. rawatina ñi nga xam ne ñoo yore woon waxtaan wi. leeral yi ñu ci def yëpp. ndax leeral yi nga xam ne def nañ ko yëpp yu am solo la. muy sëriñ Saam Buso xam sa diine. di sëriñ Mamor Mbacke xam sa diine. ak sëriñ Abo. ak sëriñ Abo moom sëriñ Mor. ak ñi fi jël kàddu ak ñi fi jël kàddu ñëpp. ñëpp seen xol sedd na. nee na ñëpp daal ñi fi teew seen xol sedd na. kon nag nee na ñu ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di leen jaajëfal. di ñaan ñu yàgg koo teewe ay déwéni déwén. di ñaan ci sëriñ Mor Diarra. ñaan ci daraje sëriñ Mor Diarra. mi nga xam ne. mi nga xam ne. lu mu ñaan boromam sëriñ Tuubaa fekk ko ca. nawet bii ñu dëgmal. yàlla defal ñu ko muy nawet bu koom. te sakkan. te sakkan. tan jëriñoo ko tan jëriñoo ko. ci lu neex sunu borom. yàlla mën na ko. yàlla na ko yàlla def. jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ bi kon ñëpp bokk tàllal